wali jali so wonamo yeli dañata ko ñaami so wonamo yeli dañata dole ndaare aduna ko fuuti foyde ha gore jam fo heewi e dow golle bonde en dan boni ndaare tuna fuuti fuyni war nañu xoolaat suñu comportement bu baax a baax daa pas de responsabilité de balaa ñu koy laaj ñun nañu matal suñu bos sa nit noonu ngay mel da ngay matali sa bos ba pare nga soog laaj leneen ñun suñu bos matali wuñu ko y a trop d'indiscipline sur la route euh, comme ni ñeen ko waxee ba tey rek ñu ngi nii ci chauffeur yi ah, kii ñu taxawal nag nekk euh, chauffeur transport buy daw Dakar Guinée euh, frère dañu lay bàyyi nga nuyoo waaw maa ngi sant ñëpp di baalu àq ñëpp te ñi ñaan yàlla tiis fi am ni yàlla na fi yem te nga xamante ni du coobare benn doomu aadama accident nag buy ñëw moom day ñëw rek seytaane la lu nekk lay ñëwee itam waaw. yow nga di chauffeur di daw guddi ñu bari joxoñ leen baaraamu tuuma ci accident yi am parce que ñu bari mën nañ ci citer comme état nee na accident bi ci pono la est que mën nga ñu indil ci loolu ay leeral. non accident moom bu dee dëgg moo neex yàlla rek moo xam bëccëg la moo xam guddi la. ndax nit ki da ngay toog sa biir kër sa accident fekk la fa. lu nekk accident moom accident rek turu accident moom accident la moo xam guddi gi moo xam bëccëg compétence su sofóor nag nekkul ci guddi gi nekkul ci bëccëg gi ndax lépp mbirum yàlla la su yàlla mooy dogal te fu yàlla dogalee rek lu mu am rek kenn mënu ci dara waaye na yàlla daf ne sabablu leen ma sabab leen balaa dara am day fekk yow nga nekk ci yàlla jàppale la ca ñun nag fi mu doon ñun suñu accident tudd nañ sofóor sofóor mais sofóor dafut dara du ma défendre sofóor nag du ma wax ni du ma sofóor ndax sofóor laa mais itam tey jii mën naa ko ne ñun ay jàmbaar la weesu nañ jàmbaar li tax ma ne jàmbaar lañ da ngay xool diggante Nouakchott Nouadhibou oto bu nekk da ngay romb sa morom te doo ko laal diggante Dakar Kaolack xoola fi no boo doonu sëfoor dëgg dëgg dëgg da ngay feree na xaar sa morom lan moo waral lool xataay lan moo waral lool oto yu bon lan moo waral lool yoon yu bon loolu ba tey tudduñ ko teg ko fële léegi bu bi yëpp nar koo teg ne sëfoor la déedéet ndax sëfoor mooy acteur bi kon sëfoor la ñuy teg débat bi yëpp mais problème bi yëpp du ci sëfoor ndax sëfoor bi liggéey doo la am ndax nit ki munoo am sa kër bàyyi ko fa xëy génn ne maa ngi dem rey nit te duma ca bokk tey accident bi am nii ñaata safoor ci dee ñeenti safoor ci dee juróom benn apprenti kon ex safoor boobu moom moo ko tey du coobareem ndax nit ki boo xëy dem di wuti wuti moo loo yëkkati mais du pour rey nit kon nag nañu seetaat suñu bopp tax xam ne lii am am na léegi nag li ko waral nag la ñuy seet seet bi mooy lan ñii nee nañ pono la lan mooy pono ndax pono bi 9 kilos lay def pono bi 9 kilos lay def. nga monté ko ci oto bi ki jënd oto ñaar fukki million mënut a jënd pono ñaar fukki junni kon loolu kan la ñu war a mën a sikk kan moom moom oto bi kan la ñu man a mën a sikk ki moom oto bi topp pono mi nga xam ne tey moo gën baax te jaay Michelin ponoom dala koy jaay fanweeri junni garanti la ko 6 mois man jënd naa fa pono mu gonflé ko sama kanam mu toj mu yëkkati pono joxaat ma kon toj toju pono du ci coobaree safoor safoor da ngay xëy suba sa pono yëpp baax nga avancé bala ngaa yegg jam ñaajo benn toj da ngay monté tey pono léegi fanaanoog moom xëy suba sa pono bi kërëwe kon maanaam bu ñu ne pono bu bon la wala pono bu baax la pono dina yées ba pono yi feer yi génn yóbbu la fa nga jëm pono dina bees pul te du la mën a yóbbu diggante fii ak buntu Pikine kon nañ leen seetaat suñu bopp nañu jàppale dañ ne état moo am doole état na jàppale population bi indi fi oto yu baax ñu mën a ànd ak ñoom liggéey transporteur yi am ndax fi ndooni fii da ngay leb banque vingt million fii amul kenn ku fi sa baay bàyyi loo xamante ni da kaa doon ñëw di ko liggéeyee da dem leb banque vingt millions ngay leb banque jënd oto bii nga dem jënd pono fukki junni ak ñaar wala fukki junni nga ñëw wax ma ko ma d'accord ndax lu tax ma d'accord aw ma leneen lu ma liggéey te toogaay bi amul njariñ sama kër laa yor su ma liggéeyoon nan lay def il faut ma jël ko su ma ko bañee sama morom nangu ko. est-ce ah, buy daw dina am comme genre ñoo xam ne ñoo koy entretien wala ay mécanicien wala ay ñoo xam ne ñoo ne ci biir oto yi. ay lallaay yu compétence sax te bu ma loon limaloon fii ay garage bari na surtout man mi nga ne damay daw ci àll bi. lundi laa fi départ ñëw fi mardi ba di mercredi su ma ñëwee garage laa yendu lépp lu ma neex ci bi ak lu ma neex damay dindi su ma paree dem station ba raxas. mais comme tey yow distance bi ak yow en cas où nag kooku yow li nga may wax comme genre nga ne ma avion day am mécanique ci biir su après day signaler affaire yooyu amuñu oto boo xam ne bu paay buy paan da lay signaler. fi may yóbbu dama fay xam tey jii bu fekkoon ci biir avion bi nga nekk avion bi bu naree am paan da koy signalé xam ne avion bi am na paan dëkk ba nga njëkk a jot nga wàcc fa mais oto bii tey boo demee amul luy lay wan ne man mii bala maa yëgg dëkk bee sama pono bi day toj. léegi ma ñëw ci problème mu Versailles ñu bari naan Versailles du yoon si charge la chauffeur yi ñoo koy def dañuy dem ba jël ay ban sax di ko ci teg. voilà merci beaucoup Versailles du suñu coobere ñun chauffeur bi borom oto bi moo dem service de mille mbiite ko. teg fa weer saay teg fa porte bagage safoor ba tey dara topp ko amul lenn loo xam ne safoor da koo def transporteur bi moo dem wuti carte grise am mbiite ko daf ci porte bagage daf ci weer saay yow safoor bi oto lañ la jox rek ne la demal nga liggéey kon safoor indiwul ban safoor même bu fekkoon ne bis bi dafa ñëw indi indaalewul ban safoor bi dooliwul ban transporteur bi moo ne nañ ko doolil weer saay ingénieur bi daa ko roloog moom loolu ñu dooli ko ci mais du safoor moo dooli amul benn chauffeur bu fay soudeur mille soixante mille wala soixante dix mille ne ko yokkal ma weer saay amul. amul benn chauffeur buy fay porte bagage yi un million la amul benn chauffeur bu mën a fay un million ne defal ma porte bagage wax dañ koy déglu amul chauffeur deful dara chauffeur xam nga lu mu def dawal bi xam nga lan laa d'accord ci chauffeur mooy maanaam oto bi si nombre na lan la si nombre place yëpp toog nañ ñi taxaw ci bunt bi ko défaut de chauffeur la kooku d'accord naa ko. mais banc yi ñëpp toog nañ chauffeur ba tey six nombre ko six nombre bi chauffeur 2000 moo ko nangu. service de mille boo ñëwoon di mbiite ñu ne la oto bi ñaata ñu indi oto bi ñu xool ne 57 la nga ne 60 laa bëgg ñu ne la fi sooto doo am doo am 60 kon moo fa def mais service de mille ñoo ànd si 60 yi wala ñoo ànd si 70 ñoom Versailles ñoom ci ànd ak. ñoo ci ànd ñoom ñoo ci ànd nañ bañ Versailles waat naa ko ci alxuraan buñ bañoon Versailles di toog pile de 100 kanam dootoo gis oto bu am Versailles ma ñëw ci takk mbaal yi ñuy wax takk mbaal yi problème chauffeur yi la wala apprenti ay takk mbaal apprenti mooy yëkkati bagage yi teg chauffeur ay dawal. chauffeur mooy dawal apprenti mooy teg bagaas ah, yan comportement nga jàpp ne chauffeur yi war nañ koo comporter surtout jamono jii nii. waaw comportement bi société la boo xam ne dafa yàqu. saako saako soble la. benn doom bi buñ ko dindiwul mën naa yàq lépp ndax ñun man ci sama bopp laa koy nat doon xale bu ndaw. jënd cap 6000 francs jënd t-shirt 4000 jënd jean 6000 lépp mu nekk 14000 moo yor appareil 90000 yor direction bi ak benn loxo pono bu monté 9 kilos kooku xam nga ne bu fekkee ne amuloo maîtrise doo ko yóbbu bu pono ba tojee nañ waxante dëgg am na yenn comportement yi ci ñun la. loolu mënul ñàkk nag société bu nekk la am na lu koy safal am na lu koy soppi mais nag éducation bi li tax amuñu ko dañoo amul ñu ñu orienté ñun amuñu kilifa kilifa moom la ñu ndax xale bu nekkee ci kër li kay yar mooy si kilifa moo naan la dafal nii dafal na le ñun nag ci suñ terrain bi fii amuñu kilifa transport amul kilifa kenn ku nekk da ngay wax li neex ñu fal la nga lijjanti sa bopp takk sa ñaari jabar wuur say xaru laadum yor sa appareil 4-4 bi verre yi du wàcc ku la woo dootu la jot numéro bi nga loon woote pour ñu fal la ci numéro boobu kenn mënu tulee cee woo jot la ci ndax falu nga dañ laa soxla yow soxlaatoo kenn yan jafe-jafe nga ñu ci su ma ko nettalee àdduna tukki bari na man maa ngi nii dawal naa vingt deux ans scooter bi nga wéeru ni aw ma ko te bu fekkoon tey tubaab la am naa lu ëpp scooter bi yaa ngi daw Dakar dama ne maa ngi dem guddi ak bëccëg aller retour bu ma def dinaa teg ci taabal ji juróom benn fukki junni su ma ko bañee sama morom jël ko dépasse dong laay daw salaire oto bi fukki soixante dix personnes nga mën a jox borom juróom benn fukki junni aller retour mu weer dee mu jox la fukki junni te fukki junni bu assurance bi jeex danaa la demal ba ñëwaat bu pono bi tojee mu ne la demal ba ñëwaat ndax da ngaa toj pono aw ma lu ma ko jënde yow foo jëm kañ ngay dem avancement amut avancé wuñu transport Sénégal fa mu nekkoon ba tey manga nga fa. nañ waxante dëgg ñu ñëpp ay jeunes lañ dañuy liggéey kenn ku nekk kër nga am kër nga bàyyi nga am yaay nga am bàyyi ko ci kër ga ñaanuloo yàlla génn sa kër ne maa ngi dem rey doomu jàmbur. ma faral ci weewu béy nii choc bu muy am bi dafa jël oto bi fa loolu bu ma ko net bu ma ci waxee damay fen ndax fekkeewu ma ko ndax accident bu amee lu nekk ngay dégg rumeur bu nekk di nga ko dégg ndax wax moom bu yenoo maanaa rek yenoon a maana bu yenul maanaa yenul maana tey ban message ngay ñaax sama moroomu chauffeur yi ñu moytu nda seytaane waxul dëgg mais yàq na xalaat mais nañu wut ñu ñu dimbali soutenir ñu jàppale ñu ndax ñun bëgg nañoo liggéey mais amuñu luñ liggéey oto yi benn baaxu ci yii yëpp ay réforme la am na yoo xam ne ci bato bi lañ jaar am na yoo xam ne jaaruñ ci bato bi ci suuf si lañ jaar benn baaxu ci tubaab bi dawal ko ba gaare ko fa defal ko personnel may la ko yow nga indi ko nga bëgg koy teg porte bagage bi boo calculé ak wersaay bi une tonne bi day mat xottu oto bi rek 14 ton la loolu nekk ñaata 15 tonnes nga indi 9 tonnes ci pono bi kon oto bi fi noonu ñaata nga ko yen plus de 22 tonnes sans compter ndombre bi toogagul. li may wax ku ko këruwul doo ko xam te man li ma lay wax dama koo xam da dama ci yàgg boo demee ci sase bi dala koy won guddaayu oto bi yaatuwaayu oto bi nombre de poids bi euh, nombre assi bi ak nombre vide bi yëpp dala koy bindal. léegi yow nga xam ne lii 14 tonnes la poids vide la la wax poids vide 14 tonnes mooy oto bi nga indi porte ba teg ci universal teg ci client bi door a ñëw toog kon dèjà oto bi ñaata tonnes la ci nekk 17 tonnes wala 18 tonnes nga neuf to neuf kilos boo amul maîtrise doonoo safoor dëgg te pono bu toj du du dawalu mën safoor bu mën a dawal de ndimalu yàlla moo cay am. mbirlu gu njëkk gi bu amee fekk la ca nga nekk ca dara fu mu la yóbbu fa nga jëm kuy toog naan ba pono bu tojee damaa def quatrième damaa def cinquième waxoo dëgg pono bu tojee doo doo tal quatrième ak cinquième boo dee safoor dëgg jafandul xewul fa nga jëm boo amee maîtrise boo amul maîtrise nag fu la oto bi yóbbu nga dam fa. kon nañu jàppale état moo fi am doole na jàppale population am transport bi li ko mën a yor kilifa giñ ko jox ne moo yor transport na wàcc ci terrain bi di nemmeeku ay njabootam. ministre yi nañuy ñëw fii di ñu nemmeeku ñun acteurs yi nga xam ne ñooy liggéey ñu leen di wax suñu jafe-jafe ba pare ñu ñuy womat di ñu yóbbu ci saal yi di ñu encadré ñu xam fa ñu jëm mais nii ñu nekkee nii al hasard la kenn ku nekk fi na ñëw ngi de dix personnes kenn ku nekk mille francs fi bàyyi boo xamee ñibbi sa kër. ah amul daw yaram li ma wax moo am dama koo dund man dama koo daj 22 ans 99 laa bëreewete ba fii may wax ak yow nii bàquwuma ko nag amul benn alkaati bu ma mas a ko saate te musuma dem benn brigade jëli sama permis mais nit ki da nga am comportement am na loo xam ne ànduma ko ak sa force yor sa cigarette yor sa cap déglu sa appareil nekkul ci dëgg nekkul ci yoon ak chauffeur bu commenté daf itam nit ki da nga am comportement boo toogee ci direction bi client bi xam ne yow mii ana safoor bi kenn du ko nataabe mais taala rojo bi yokk rojo bi sa pare-brise bi nga jël ko lépp mu nekk ay këyit ba booy sëgg booy dawal da ngay sëgg wala léeg-léeg nga ne ko yëkkatil ma nangam nekkuñu ci dëgg lépp nag lu ko waral ñàkk encadrement topp suñu bànneex a suñu bëgg-bëgg. Euh, voilà mbokk yi comme ni ñu ko waxee ñu ngi nii ak ay frère am fas yéene ñëw si ak ñoom waxtaan euh, frère dañ lay bàyyi nga nuyoo ak ñu lay suivre. waaw maa ngi leen nuyu Sénégal. Euh, Pape Diakhaté la coordonnateur bu group soppe transport bu Sénégal moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax euh, di am contentement nag ci seen ñëw waaye tamit euh, di am naqare tiis ci li xew. ñu ngi leen koy jaale aussi aussi euh, naka nga yëgee mbir mi. waaw mbir mi ni mu ko yëgee bon man bokk naa ci ñu ko njëkk a yëg ndax man souvent lu mun mënta xew tamit information bi man maa ko jox chauffeur yëpp. daanaka ñuy njëkk a yëg lu am man ci bokk euh, choc bi mi ngi am quatre heures du matin te bi mu amee rek ci laa ko yëg mu nekk lu doy waar lu doy waar lu doy waar loo xam ne mosul am Sénégal te aussi tamit fa mu amee noonu en 2012 amoon na fa amoon na fa ba amoon trente et quelques yu ci amoon même lieu la encore la la choc bi amaat encore kon foofu noonu war nañ faa mën a def ay ralentisseur wala bokk am na lu fa nekk loo xam ni mooy teew tey d'accord ma ñëw ci kii nga xam ne cité nañ ko ci mu di Kanka Moussa yan relation ngeen amoon yéen ñaar. bon tey nag dinaa témoigner ci koo xam ni euh, Moussa nekkoon na koo xam ni wax dëgg yàlla man dama ko yéex xam man dama ko yéex a découvrir ndax combat bi Kanka porté man ko combat boobu laa porté comme coordinateur ci transport ak fa ma dëkk Moussa nekkoon nit koo xam ni wax dëgg yàlla yàlla mun na ko bàyyi ba ci kanam daal yàlla mun na ko bàyyi ba ci kanam ndax transport ñàkk nañ loo xam ne dootuñ ko gaa amati ku ci mel ne kanka Moussa Moussa Moussa Moussa turandoo Moussa Guerrier man je le voyais comme Moussa Guerrier quoi Moussa Guerrier ak activiste loon comme moom pas activiste sax mais Moussa Guerrier mën nañ ko jàppee activiste donc lii kanka di def loolu la Moussa Guerrier doon def tey nu ñàkkaat un Moussa Guerrier encore wala un kanka Moussa comme Moussa wax dëgg yàlla Sénégal Sénégal yëpp en duel nit ku baax la woon nit ku porté woon combat bi la transport nit koo xam dafa bëggoon ñëpp am jàmm Sénégal am jàmm ñëpp dund ci jàmm ba pare nag mu nekkoon patriote patriote la woon Kanka <laughs> Kanka patriote la de waaw te tamit nag réew mi dañoo soxla des gens comme comme Kanka ci patriote boobu ñu gis ni avant sax muy départ defoon na benn vidéo wala bari na vidéo yoo xam ne daal na ko def heure bu voyagé mel ni kuy ñaxtu mu mel ni dafa am lu bari loo xam ne transporteur dañ koy dund ci côté Kaffrine bi. waaw côté transporteur yi pour wax ci dina xaw a sévère tuuti mais de toute façon daal lépp lu waaye nangu ñu teg ko ko da koo neex mhm. lépp lu waaye nangu ñu teg ko ko da koo neex. lépp lu chauffeur nangu ñu teg ko da koo neex man du ma wax benn transporteur ndax su ma waxee damay tooñ. mais chauffeur bu nangu ñu transporteur bi teg ko lu lu lu yoon da koo neex. ndax munoo dem wuti jox munoo dem liggéey dem liggéey indi donc bu ñuy takkee bu ñuy takkee saret dalaa neex. min nga euh, tali Kaffrine bi. waaw fa laay daaw ah fa daaw. Euh, lu mel ni tali boobu noonu bari na loo xam ne aussi tamit sénégalais yi ñu ngi koy ñaxtu que ni amul yenn barrière yoo xamante ni dina mën a sauver yenn oto yi tam ñu séparer voies yi. amu fa tri amu fa liñ continuer amu fa tali bi chaque nawet day gën a wàññeeku tali bi chaque nawet day gën wàññeeku liñ ko tali bi baaxul luñ continuer amu fa pour wax la ne état bu Sénégal daal pour man dafa jàpp Sénégal Dakar la. xëy na peut-être un gars comme Sonko bu ñëwee ci sama xalaat bu gàtt dinañ mën a jàppale. d'accord bala maa ñëw ci état. Euh, ci tali boobu aussi tamit ñu bari di wax ni foofu des fois daa waroon am ay secours yoo xamante ni euh, des fois boo amee ay jafe-jafe boo wootee dinañ la dimbale parce que moom bi muy daw il paraît que pneu bi moo moo dem après ci la oto bi saaraan. waaw xam nga jiyee moom fu nekk lay ñëwee rawatina pneu avant bu toj pneu avant bu toj ci lu yéeme la lu doy waar la loo xam ne à chaque fois euh, war nañ di mënti bàyyi si mu xel ñun ñi nga xam ne ñooy dawal ndax tey du ma jox lépp état bi wala ma jox lépp ñee non damay kon am na ci boo xam ne damay jël loolu delloo war ko chauffeur yi ndax am na ci part de responsable boo xam ne chauffeur ñoo ko porté. état bi am na ci part de responsabilité mais chauffeur yi am nañ ci part de responsabilité ñu bari di kaas ni aussi tamit bis bu ñuy ñëw dafa am nombre boo xam ne moom la ñuy indi mais dañuy gis ni dañ ciy boole ay Versailles ah dem ba ci teg ay banc nombre boobu noonu. mais Versailles c'est pour moyen de transport. Versailles pour wàññi paas la Versailles pour transport bu yomb la comme ñun amuñu comme ñun amuñ comme ñun amuñu amuñu ndey moo tax foog oto yi am Versailles. ndax ndax transport bi wàññeeku sinon transport bi day cher trop. loolu loolu la quoi moo tax. yan jafe-jafe nga ñu dund ci tali bi. naqar rek naqar chaque jour ak coono. naqar coono tali bi daal baaxul. tali bi xat na trop. tali bi baaxul. naqar bi ñu dund ci tali bi yëpp tali bi xat. mais boo amoon deux kon dara doom am kon. appel bi c'est rare nga gis si bi c'est rare nga gis choc. mais route nationale bi chaque jour day am ay chaque jour day am ay soog kon kay war nañoo mën a xam ne am na lu xew ci tali bi. <laughs> kon est-ce que aussi tamit chauffeur yi comme des fois yi ñuy wax naan dañuy takk mbaal jël oto takk ci kaw ak yenn nombre de kilométrage yi ñuy daw aussi tamit ak takk mbaal est-ce lool tamit du responsabilité de yi. non gars dañuy wax rek chauffeur yaa ngi naan takk mbaal dem fu ne chauffeur takk na mbaal dem fu ne chauffeur takk na mbaal fu ne chauffeur wàcce na mbaal mu ne. kon am na joo xam ne moom c'est des faux paroles daal voilà. tey ban message ngay lancé ki nga xamante ne mooy état ak sa mbokk chauffeur yi. waaw sensibiliser waat chauffeur rek wax la waxaat la ñu def ndànk avoir un bon comportement changer jikko yi changer comportement yi te xam ne tali bi kat su baaxee ñun la waaye su bonee ñun la.